Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. voilà mbokk yi ñu ngi fekk euh, Lamine fii ci daral bi salaamaaleykum. rak saba maa ngi ziar. naka daral bi. sant yàlla gis nga. mais yow xam nga mais yow xam nga. nga war a def mesure barrière ba pare teel. yaa war a pompe ba pare xam nga. mais Lamine ñu gis nii macha allah bëri na ñu fiy liggéeyee. ñoo fi jël ñuy liggéey euh, idée bi fu mu jógee. sama papa xam wax ma ban baay nga yor rek moo wax la kan nga war a doon suba sama baay dafa bi man ci liggéey gëmloo ma ni géwél bu doon association sama baay gëmloo ma ne moom du ci bokk sama baay gëmloo ma ni liggéey rek moo wóor sama baay gëmloo ma ni lu la liggéey mayul du la ko xañ loolu moom moo tax ma gëm ni dama war a liggéey. dama war liggéey kese dama war liggéey dong liggéey rek laa war a def waruma def leneen. ñu gis ni jamaïcain ngeen euh, mu nekk sa doom mu ñëw fii indi fi euh, li nga xamante ne moom mooy euh, mën naa wax présentation combat am nan gisee. ça me fait beaucoup plaisir daf ma neex parce que xale boo xam ne la maa ngi koy tette ñu ngi dem mais xam Sénégal lan moo ko yàq gars yi xamuñu communication li leen neex lañ xam. tey su ma nee si bi moo fi gën ñëpp moom la ñu seetaan après tu vas m'appeler pour ma dire merci jërëjëf kontaan naa su ma waxee la contre nga ne dama laa contre loolu moo nekk ci Sénégal xale la mu ngi dem nañ ko góorgóorlu ñaanal ko yàlla mu gën a dem mu ngi ci tànk réussir nañ ko ñaanal yàlla mu gën a réussir loolu dama si kontaan trop. ñu def benn remarque na nañoo gis euh, saison boo xamante ne lamb yu bëri danañ taxawandoo ñu gis nii pratiquement lamb yëpp taxaw. nan nga gisee ni promoteurs yi ñëwee ni ñu songaatee lamb Covid oblige li ñu dal daf ñu bett mën ñu daaneel Amérique cinquante deux états fédérés mu daaneel ko xam nga kon du bàyyi réewum Sénégal ah du bàyyi lenn fenn léegi nag gars yi meroon ñu ne état bi taxawal na euh, arène def ci trente deux milliards ñu ci defee trente deux milliards après ñun duñ fa dem bëre ji état bi fermé Demba Diop ne dama koy defaraat fermé stadium Iba Mar Diop ne dem leen seen stade ngeen bëree fa. ñu ne dañu am carence promoteur xanaa xamoo ki ki ki nelawaloon làmb moo yeewaat làmb mooy gaso bu ñëwee ñëpp ñëw daa mel ni man su ma defee su ma deful émission jongante doo dégg benn émission làmb ñëpp dañu stand by mais su ma jógee rek ñëpp jóg yàllaay def loolu. <laughs> alors euh, ni nga xamante ne moom mooy Balla Gaye revanche sama Gris Bordeaux yaa ngi ko doon xaar wala xaaroo ko. xaaroon naa ko. mais est ci période bi. xaaroon naa ko wax xamoon naa ni dafa am foofu goût d'inachevé nga xam dafa waroon yegg te yeggul xamoon naa ni Balla Gaye numéro deux waa euh, Géejawaay mere nañ ko parce que li mu bëre ak Gris Bordeaux cinq minutes boo calculer combat yi mu bëre si carrière am mat ko mu ñëw jël Gris Bordeaux bëre ak moom de dama am lu ma doon wane parce que gàddaayoon na ma seen daan ko mu jóge ci ay jafe-jafe mu ñëw Gris Bordeaux tam am na am loo xam ni. keroog bi muy bëri ak Balla ñëpp dañu xamoon ni moom moo jàpp ni Balla Gaye était maladive mu ñëw mu tenir ko en échec Balla gagné ko léegi nag loolu bu ñu ko sumbaatee kan moo leen teree ne nekk royal fu roi bi nekk di nga bëree jëkki daan diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux bàyyi force ñu gis ni euh, combat bi nga xamante ne moom mooy euh, booy ñaa aussi ak Tapha taxaw na grand contre petit Gaston bravo après loolu yëpp liggéeyu Gaston intelligent qu'est-ce il n'a pas dit jox naa Balla ñaari avance pour Boy Niang Boy Niang bu demee jëli Tapha Tine je t'explique Tapha Tine ku ko daanoon déedéet ku ko daanoon avant Ama Baldé Balla Gaye daan Boy Niang lu mu doon wut bëri ak Balla waa waaye ñoom ñaar ku ci daan bu dee Tapha moo daan revanche am ak Balla du taxaw bu dee Boy Niang moo daan du du xool Balla Gaye danaan fan la roi bi nekk ma dem seeti ko bu Balla Gaye moo naan kaay ma bëre ak xom wax baax ngoog moo tax ma ne bravo Gaston. Euh, mu nekk lu am solo Vox naa ñëw muy sunu structure daal di taxawal Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 bu Ndayane nan nga gise loolu. non yéen vous êtes intelligent parce que Tyson 2 dafa jóge ci défaite bu ko métti boo xamante ni defe naa moo doon premier défaite am. dernier après daanu na. Euh, guy gi daanu na ko. waaw waaw parce que. kon damay jaawale Tyson junior ak Tyson 2. Tyson 2 non Tyson 2 rëg rëg daanu kii daanu ko fii nu tudd am na ko am na mbër mu ko daan fi. moom moo mais moom lañ jox fi. moom laa la wax non ma ne ci arène bi xam nga mais buñ la daanee ci arène ba ñu dem ba fa lañ jox la ko man loolu moom comptabiliser wu ma ko mais ci biir stade laay wax ñëpp ñoo génn taf seen gémmiñ parce que Tyson de mbër mu ñu ragal la mbër mu ñu jox cër la mbër moo xamante ne kenn du ko may kenn du may kenn dara la mais bu ngeen ñëwaatee ngeen timbax ko non combat bu la. Pikine dina jóg Eumeu Sène dina ko ngemb ne li ñu jóge ñu ñu ñu ñu dem ba fële ñu joxaat ñu victoire loolu yëpp dañuy laver bi waaw bu neex ngeen tëgg et félicitations à vous. man dama bëgg ku osé dama bëgg ku ñeme waaw. GFM ñëw ñu dégg ko ci ay combat ah ñu dégg leen ci ay combat comme ni ngeen ko defoon yéen fi indi woon Sa Thiès yaakaar naa ak euh, ah, ngeen ñëwaat ñu dégg ci komba ki nga xamante ne moom mooy euh, guy gi. ak ki nga xamante ne moom mooy euh, gone gii di rëg-rëg fu mu toll. non secrétaire bu bu wax GFM Sénégal Entertainment Group la. GFM nañ ko wuuteel doole parce que GFM tëggul tëgguñu tëggaanuwul mais dama lay wax ne la dañu am benn mbër Sénégal Entertainment Group dafa am benn mbër di wut beneen mbër. dafa am rëg-rëg di wut beneen mbër mbër boobu nag ñuy wut moom la mbër yi ñemewul li yi bañ a dégg maa ko wax. mais est-ce que c'est pas trop osé Lamine ne ki nga xamante ne moom muy guy gi nga nommé ni non waxuma ragal la de je pèse bien mes dama ne ñeme wu ñu Reug mbër yi yi ñu ko ah Reug kañ lañ ko wutal adversaire kañ lañ koy wutal adversaire da ko am Reug Reug ne vaut même pas 15 millions le cas de Gouye Gui ëpp na lu muy bëre wax na ko Sa Thiès fay nañ ko 40 millions muy laaj 60 millions te du ñoo rek la ñu seeti je crois am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañu seet moi je n'attaque personne man sénégalais yi laa fi nekkal waxuma pour citer man guy gi su ma rakk la daanul jël avance te ñëwul ci man bank nga sa baaraam añee sama kër ma añee këram soxla sama oto ma jox ko ko mu soxla ot sama oto ma jox ko ko ma soxla oto am mu jox ma ko grand damay jël lii ma ne ko bul jël mbaa jël xanaa xamoon ni guy gi dong mooy mbër mi nga xam ne lekk naa xaalisam avance bu mu mus jot daf ma ciy jox je suis papa quand même xam biiram xam biteem lu ma ñàkk fayda ma tux yamba xamaluma deux puces xamaluma fen xamaluma naafeq xamaluma sàcc li ma xamal mooy moo koy conseiller logiquement lum nar a dugg bu dee jafe-jafe ma wax ko ko wax naa ko lu gën a garaaw lool nee naa ko ci télé bi guy gi daa booy jamono bi ma nekkee Walfadjri il ne le prend pas mal on le conseil très mal parce que ku koy jël di ko door ci kaw journaliste yi mi ngi koy jël di ko dóor ci musibaam nous ne sommes pas ses ennemis nous traitons l' information te man maa ko wax mbër yi ñemewuñu Reug Reug maa ko wax. <laughs> voilà. Garga bañ na Tyson doo war na ko noonu ma yenn na ko ba ci kaw door na ci suuf Garga def na trois appui ñoom ñaar Garga bëgg na cee génn waaye Tyson da ngaa dajeeg daan tey. 19 heures 10 minutes 25 décembre au stade Iba Mar Diop Diaks Wrestling Production. le gala des Caatu Yoff moo nekk suñu ndeyjoor moo sut Franc bu Parcelles mbooloo moo nekk suñu càmmooñ ngemboo ngemb lu weex moo gën a gàtt waa caat waa Yoff yëpp ànd ak mooy eh, Franc dem na jëli caat Franc dem na jëli ko day mbapat ak moom dóor bi la bañ waaw combat rapproché moo ko gën a eh, eh. Franc caatu njaago yi mi ngi jàkkaarloog ak ak ak caat caat kii mbapatkat la de caat rëpp na Franc war na ko ndomba daan na ko ewaay ewaay oh! Nekkorel Tyson 2 Nekkorel dóor na ñoom ñaar daje nañu Nekkorel la ngi dóor Tyson 2 ñoom ñaar ñi ngi daje <laughs> bu la jëlee Nekkorel Tyson 2 Nekkorel la ngi koy waaye <laughs> génn nañ ci biti ay <laughs> Tyson 2 dóor na moog Nekkorel jàppante nañ Tyson 2 daan na Nekkorel oh jëli bi rëy na waay Tyson 2 jàpp na Nekkorel yi yëkkati daar dóor ci suuf doomu ndaayaan bi combat Franc Parcelles moo la moo nekk suñu jara mi ngi dox ci kawam Franc bu Parcelles Franc daw na jëli ko amaat na tànk Franc amaat na tànk jara deux attention ñoom ñaar rëpp nañu wër na ko ndomba jara am nga problème jara am nga problème jara am nga problème mi ngi koy dóor Franc mi ngi koy dóor ñetti appui quatre appui oh daan na jara doo ko ndeysaan waaw foofu da koo kor mu rocc loxo ba mu door koy perkil mu sàq ko Franc Nguer ah doorante nañu day dal na tànk li wëlbati na ko wël na ko nomba buddi na ko daan ko la ilaha doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. Eh, doole <laughs> doole xeeñ. waaw ah, kii. kii doxul jàmm ak nit ñi doole ci réew mi. nga ne bitim réew. bitim réew. moo ëpp yëpp doole. ay bi. waa parcelle dañ maa yónni yàqamti doomu parcelle la. Tay Shinga doomu dàggu école de lutte Songane Gueye. ndeysaan ñu ngi too Max Mbargane Tyson 2 moo yor ngembulu Bulali. doomu tàngu moo yor ngembulu weex. Tyson 2 gi xeex. déclenché na Bakar. Tyson 2 gi xeex déclenché na Bakar. doomu na ko. non da xalaat. da ko agressé mayu ko mu nooyi ah, xeex ak moom Bébé Saloum day xeex ak Franc jàpp na ko. jàpp na ko lamb ji jeex na wala jaaxu la kot daan ko doole doole baajo bi doole baajo bi Franc mi ku koy arrêté oh kii arrêté na Franc. Tyson 2 door na Tyson 2 jël Gora Sock Tyson 2 attention Tyson 2 ngir Gora Sock a ngir est-ce que diisul est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui. Gora Sock Tyson 2 Gora Sock dama war a xam ne luur la daw nañu jël Gora Sock ñu ngi koy plaqué Gora Sock day rëpp rëppati Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.